Thank you. Ok salam salaamaaleykum dal leen ak sur www.igfm.sn Tay ñu am mbégte di dalal ki nga xamanteni moy euh, mooy Iba di nek acteur euh, di évoluer fele ci États-Unis donc tay dañ leen ko indil mu waxtaan ak yeen euh, viewam fi ci Sénégal lan moko ko yóbbu France ak États-Unis nan la fa démé nan la duggé ci métier d'acteur et tout donc ak projet bi nga xamanteni ni da ko am pour wa Sénégal mu nek projet bo xamanteni pour jeunes yi nga xamanteni ne dañuy def cinéma la donc Iba ñuy contane di la dalal fi ci IGFM fam di la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum Fama euh, maa ngi leen di remercier ñi ngeen ma invité fii euh, kontaan naa et puis mbokk sénégalais yi ñëpp maa ngi leen di nuyu man maa Iba Awa Thiam maa ngi dëkk euh, Point E foofu laa juddoo je suis 100 du Sénégal mbokk yi salaamaaleykum.

sama yaay ne bon bàyyi ma génne la bon instant boobu dañ ko affecté mu ne léegi naaw njëm ak moom ma dem blanche mm. instant sama frère sama ak ñaari euh, en France man je voulais pas au début mm. après mère bi ne ma xam nga France continuer j'étais intéressé dans l'agriculture loolu laa bëggoon def en France mais dès dès dès que mon yegg foofu j'ai commencé de me bougon être autonome ma commencé di liggéey nekk ci restaurant de di defar sama xaalisu bopp nag après moi, andi ma passion wu bëgg a togg togg bi andi passion wu voyager Légui, euh, foofu la commencé d'accord donc avant ngay nekk acteur euh, da nga nekkoon euh, di togg. chef cuisinier am sa ay affaires et mhm, tout. Mhm. donc lan moo la poussé nga bàyyi loolu. d'ailleurs loolu la si dugaloon passion bi. Euh, damay damay kaf di wax nit ni de bo ubbe sama xol waañ nga ciy fekk parce que togg la bëgg sama xol damay euh, vraiment du et puis du yëfu yëfu yëfu waañ moo ma neex. Mm. euh tax gay buñu bu nak chef la ma leen ma chef parce que le chef du raxas ndap mm. man je suis un cuisinier lepp lañuy def dañuy fobere dañuy menace dañuy togg lepp lañuy def parce que c'est une passion c'est un. Euh, léegi ma commencé Bon, bi ma yeggee aux États-Unis j'ai trouvé que man limay lekké lop lekk bi ma tàmm lekk ñoom amuñ kon fofu ci la commencé nak mané attends man je vais créer un truc def li ma tàmm lekk diko jaay nank nank mm-hmm. bon muy ben après ñaar ma mujjee am ben restaurant am euh, ay cantine di def ay festival euh, j'ai gagné un concours pour xamante Il y avait 56 chefs ñu def benn concours cuisinier ma gagné ko ak maa fa euh pour te, en, en, 2017 euh, kooku moi, c'est, c'est un truc pour moi, on est vraiment togg bon maa ngi doon def parce que c'est ma passion mais léegi sama liggéey j'étais acteur en même temps léegi damay jéem a balancer balance yooyu léegi instant yi nag acting dafa yegg ci si bi parce que dama daan dem pendant un mois di shoot def def ay ay film bàyyi sama business muy xaw a souffrir tout daal bon moi décidé nag vraiment que acteur acting bi instant yi nii euh, mooy li ma bëgg def moo nekk sama xol instant yi nii quoi togg bi moom gaawul kooku moom waañ waañ bi demul fenn. d' accord euh, donc euh, bu ñu jógee euh, France ñu daal di ñëw États-Unis bi ngay wax ne que foofu nga defoon concours bi donc concours bi yan nationalité ñoo ci nekkoon. oh concours bi oh y avait am na nationalité de partout Israël États-Unis France Libanais amoon na amoon na benn Ivoirien Mexicain pour pour juste me me rappeler de ça et puis bu mu la waxee mexicain wala euh, italien wala euh, Israël day am deux wala trois. xam nga non la won euh man je yow man rek ma ci won sénégalais mais man dama leen bëggoon choqué te te te bokk naa <laughs> d'accord <laughs> hmm. donc euh, lan mo la dugaloon ci acteur nan nga def ba dugg ci cinéma. euh cinéma du ma xam nga gëmuma ne que life bi amna accident. Euh, li, dama a une raison pourquoi et puis bon man ni ma sama life ma vie ak li ma def c'est c'est comme si j'étais en train de me former depuis des années pour terminer un ma acteur. Mm. parce que euh, confidence bi ma sama yaay jox bi ma nekk xale laa jël moom laa jël voyager euh, xam ay nit ay may jox ma ba genre koy cocktail mu man mm-hmm. te dama koy jël moom laa jël teg ci cinéma bi teg yu ma ci dara mooy sama accent changé wu ma ko euh, damay takk sama téere su set damay takk samay jaaro sama yëre lay sol euh, am na te kooku c'est mon choix am na ay ay rôle yoo xamante ne duñ ma ko jox parce que meluma noonu voilà voilà meluma noonu et puis bon je suis pas carré mooy xajuma ci box ci ci ci ci box euh, ni ñu woowee box encore xajuma ci boîte mm. léegi man je je je suis unique léegi loolu lay poussé au au euh, tout au bout et puis def final loolu mooy def euh, la personne et puis c'est ça qui qui est, qui est intéressant pour moi ok donc euh, ce pot noir bi nekkul frein pour nga je me bokk ci film yu gën mag non non non loolu musul nekk frein euh, pour pot noir bi comme comme di may wax couleur. identité. couleur et puis bon euh, je pas je les comme je les appelle des ignorants. Mm-hmm. Ignorants pour man bam te man bu nga ko itam mm-hmm. man parce que burul sax man man tu tu just qui loy xéxal koy mm-hmm. euh, bu euh, peau problème pour man.

très très grand film ñu joué ko ci euh, cinéma bu nek mais film bobu li ci neex moy biñ may bi may ñëw di def audition dañ ma auditionné pour ma nek euh, xam nga avant dañ doon chasser nit mhm. dañ daan jël esclave sànni ko ci àll bi yéeg seen fas ne ko dawal ñu jàq la di ko def comme comme mhm. euh, animal film bi loolu lañ doon def ñu man dañ ma bëggoon li ma auditionné moo dañ ma ne def esclave dàq na mhm. mais dama yegg si foofu directeur bi xool ma ma wax mu ne noonu defal nank yow dama lay defal beneen dama lay dindi foofu defal la mais li mu mujjee def mooy def ma jël ne man Iba mooy jouer Iba c'est-à-dire bon kooku du ma nekk euh, euh, accident la hmm. dama koy jël pour man euh, ma ne alhamdulilah premièrement et puis kon ne suma liggéey xam ne que maa ngi ci loo xamante ne dëgg la ci man et puis dina fay suba quoi. Hmm. boobu occasion après bon man dem am chance jouer ci Queen of the South. Hmm. muy la reine du sud moo nekk sur Netflix et eh, koko dafa am 5 saisons instant l'instant, mais bon fi ramna 4 la fi euh, pour l'instant bobu joué na ci pour 3 saisons sama caractère mo don bilal ma don chef somalien yop ñun ay bande la ñu ay pirate euh, bobu vraiment expérience pour benen affaire parce qu'on a joué pendant 3 ans parce que euh, chaque épisode chaque saison prenait un an pour nous filmer j'ai beaucoup voyagé pour def loolu euh, vraiment vraiment lolo, une expérience beaucoup de facteurs, Je suis Queen of the South je suis sur HBO avec un show qui s'appelle Leftover Je suis ici autre plateforme qui s'appelle Hulu un show avec le Wu-Tang Clan et le groupe de rap le euh, euh, fameux groupe de rap avons def une histoire Je sur la première saison Bon, cet épisode 5 à 6, pour être plus précisément ñu ngi def deuxième saison bi et la troisième saison était plus dina ñëw Inshallah, Mangi euh, maa ngi ci am benen TV euh, sur YouTube euh, def ay affaire yu bëri yoo xamante ne plus dinaa leen wan plus ma yónnee sama filmographie comme ça gars yi gën a gis quoi mais yooyu ñoo ma gën a marqué moo tax yooyu laa bëgg a waxal quoi. D'accord. donc vous euh, euh, nga bu ñu ci nga euh, Sénégal un projet pour maintenir le rek a kanam cinéma mhm. est ce que mën nous ñëwaat un peu ce projet boobu. bien sûr parce que euh, au Sénégal il y a des du talent il y' a le talent il y' a la volonté gars y a fi xale yi ont nañu hier par exemple a un centre culturel français amoon benn un pas concours mais une projection de court métrage il y a quatre films fait par des sénégalais avec des acteurs sénégalais toute la production était sénégalaise mais affaire vraiment fantastique fantastique mais dama je parle avec quelques collègues acteurs et puis j'ai un collègue qui xamante ne mi plateforme bu Filmica ça fait que dans le film, Axiné banlieue, yoyu ñu ngi ñu wax et on s'est rendu compte que y a dafa am ben problème moi par exemple les acteurs ici amuñu agent. Euh lolo lolu dama xam que lolu acteurs yi rek lay lay lay sonal. Motax je lance un appel à tous les acteurs mané xam nga nañu dajé together, nañu dajé ensemble les gars. Avec les réseaux sociaux, c'est facile. on se retrouve ñu dajé ensemble ñu tok ñu waxtaan nak lañu mëna défé ñun suñu life yi euh, mu naay c'est lolo ñun ñoko xam mais il faut que ñu am agent mais avant faut que ñu tok ensemble le ñu ensemble euh, un autre projet que je veux amener moi le pont du cinéma comme on l'appelle je veux amener de la production américaine ñu FI, New ñu def ay film fi. même les acteurs américains ñu ñëw ñu jouer Euh, en échange ñu jël les séries sénégalaises Il y beaucoup beaucoup choses. et pour ça je dis à tout le monde anglais bi boole ko ci anglais bi boole ko ci bon, ko ci jàng ko boole ko say film bon, defee sous-titré def ko français def ko anglais boole ko ci ci a langue day il a public bi a mu gën mais c'est ça mes projets. Et je suis très fier d'être sénégalais, je suis très fier d'être dans l'industrie du film sénégalais. Te li ma vraiment doy na quoi. Et il y a, y, y a des projets yu ñëw yoo xamante qui ku ñu comme Lopi, une mm-hmm. Kanji. Euh, ñu ngi def ay affaires yu ñëw yoo vraiment nice quoi. donc euh, est-ce que tey dina yomb euh, daal de jël benn série sénégalaise d'après exporter fële aux États-Unis. amiin xam nga yomb. Euh, lan mooy yomb na euh, dama gëm ne loo teg ci temps loo teg def ko def ko ci temps def ko et puis bon les les booy booy submit euh, film gars yi dañ lay dañ lay use d'habitude dañ lay laaj na lan la soxla teg ko ci temps def job bi liggéey liggéey bi bul fàtte détails yi bul fàtte détails yi bul tayal mais c'est possible c'est possible benn barrage laa gis mooy que juste bi ma ñëwee dama gis ne que film yi sont pas sous-titrés en anglais te le public américain ñoom loolu mooy seen affaire loolu tax ma anglais bi nañ ko ci bolé waaye. d'accord donc euh, euh, monde du cinéma bi euh, nan nga ko gissé cinéma africain. euh, le monde du cinéma africain a ngi mingi mingi mi ngi et puis bon à très très grand pas et puis gëm na né que filé quelques années dinañu cinéma africain dina nek ci planète bi parce que les gens ils sont. euh, euh, Africa dafa am lu bari lu mun a offrir loo xamante ne bés bu commencé ñun ñu organiser wu tuuti ku nekk di def li nga war a def je j'ai beaucoup d'espoir sur le film euh, africain et sénégalais. D'accord euh, donc euh, Pacifique Sako mës nga dem waga. Pas encore. Euh, bon, là, il y a un de mes collègues m'a démenti réunion, mais je fais pas comme on a un meeting. Ouais. Euh, Demogouma feu. Inch'Allah, mangi ñaan yalla dem ci année et j'espère que les euh, directeurs ñu ngi sétane et réalisateurs ñu ngi sétane émission bi dama bëgg auditionner dama bëgg jouer au Sénégal gaay bo len amé ay projet je suis prêt wax <laughs> voilà lan mooy sa projet dans l'immédiat à part euh, pour le Sénégal euh, États-Unis euh, bon pour l'instant damay ñëw vacances euh, nuyoo comme li ma la ko je fais un peu de, on a fait beaucoup de ni ñu koy waxee ay ay interviews ak yooyu bon maa ngi delluwaat delluwaat ci liggéey bi Covid jeex na xam naa ne que bu ma dellu delluwee liggéey dina bare fële audition yi commencé ñun ñu delluwaat ci li ñuy def rek doomu de. Mon dernier mot, Guy, euh, merci euh, à tout le monde, merci à tous les Sénégalais, merci à euh, ci diñu déglu et puis bu leen bàyyi bu leen sonn nañu liggéey liggéey Non, bu met nu mu gënee metti rek noonu lay gënee neex à la fin. ñoo beaucoup bokk merci.